wax jëf nañu li ñuy jëf ñun ay représentants du peuple lañu mais nous ne sommes pas le peuple li ñu mën a def mooy nekk ci biir wax mën a mooy siéger ci commission yi li ñu mën a def mooy def li ñuy def ni wax ak presse wante nag su dee fiñ fi la république bi ak sa constitution ak sa règlement intérieur bu institution bi jox la ay sañ-sañ jox la ay mën-mën mais mënoo ci doxal dara mënoo ci exercer dara loo bëgg a def pour jaar yoon jaaral mbir yoon ñu obstruer ko sëñ bi metti na lool liggéey ci condition ko te actuellement mooy député bu tudd Ousmane Sonko simplement xool nañu ba xool. mais actuellement c'est un règlement politique un complot politique. ah wolof respecté wu ñu. mooy ay àqam ak yelleefam. respecté wu ñu euh, euh, euh, règlement intérieur donc de suñu assemblée nationale. naka nga mënee demander à des parlementaires ay députés ñu mën a ne waaw dañuy yëkkati mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko te joxoo leen sañ-sañ ak mën-mën. boo xam ne parce que jot nañ ko yëkkati. Euh, kooku suñu yoo nekku euh, li tax ñu génn mooy dañu déggu ci mooy loo xam ni loo xam ni euh, dañ koy jëf ñëpp di gis nga ci teg sa bët sa ndonk ngay dégg lépp rek fenn la ñuy jëm mooy humilier toloxal kenn koo xam ni wax dëgg yàlla mérité wu. seen taxawaay après léegi lan la mais mais mas dafa am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que député du peuple nekkuma fi pour Ousmane Sonko. Mm-hmm. dañ fi nekk pour dëgg. dëgg bi nag feeñ parce que suñu bëggoon mu feeñ Adji Sarr man dam ko war a taxawal ni ma ko war a taxawal mooy dëgg bi feeñ parce que yërmande mooy nga mën a taxaw tamit ndax aji Sarr kenn nekkul ci ginnaaw di ko manipuler jox ko xaalis yàq addunaam yàq ëllëgam loolu tamit war nañ ko xool war nañ ko saytu donc donc li ñu waroon may député yi mooy ñu mën a saytu bu baax a baax loo xam ne mën na leen permettre ñu xam ndax lii complot mi ngi ci wala nekku ci wante lépp dañ ko boucher lépp dañ ko bañ lépp dañu bëgg simplement pamti pamte ce n'est tout simplement pas sérieux moo tax ñu bàyyi fa ñoom ñu jël seen responsabilité face à l'histoire